Pastef muy parti bu Ousmane Sonko jiite dina taxawalaat ay banxaasam loolee ki ko xamle sax moom moo di njiit li moom Ousmane Sonko gannaaw bi nga xamante ni sax dem na bay génnee agenda bu ñuy war a yeesalaat li nga xam te moo di banxaasu Pastef yi moo xam ci biir réew mi ak ci bitim réew Les Échos yi nga xamante ni sax moo joxe xabaar boobee xamle na ni bureau bu yees Pastef dana ko am laata ñuy dégmal ci élection yu 2024 yi bureau politique provisoire bu secrétariat nga xamante ni Ousmane Sonko njiital Pastef Siffé gannaaw loolee nag commissariat scientifique bi moo ci topp boobee nañ ko sànc ñaar fukki fan ak ñett ci weeru septembre ñaari semaine gannaaw bu ñu taxawalee commissariat scientifique bi danañu amal li nga xam te moo di conseil national ba maanaam juróom-ñaari fan ci weeru octobre renouvellement instance yu Pastef Sénégal ak ci diaspora dana door sax fanweeri fan ci weeru septembre ci atum jàpp juróomi fan ci weeru mars ci atum 2023 bu ñu paree ci loolee nag Ousmane dana daal di tàmbalee li nga xamante ne moom moo di benn tournée nationale ci juróom ñaari weer loolee nag ak di tournée sax dana ko jeexal ci weeru mai ci atum 2023 buy jeexal tournéem googee juróom-ñeenti weer mooy dox ci diggante loole ak élection présidentielle yu 2024 yi am Ousmane Sonko mi nga xamante ni sax daat na xamle ni candidat la ci élection yu 2024 ya tàmbale na jël ay matuwaay yi nga xamante ni yaakaar na ni loolee moo ko war a mën a jox ndam bu ñu yeggee ci élection présidentielle yu 2024 ya bu ñu sikkandikoo ba tey ci góogleeg circulaire Ousmane Sonko xamle na ni dana am benn comité ad hoc yi nga xamante ni moo war a mën a doxal góogleeg agenda